كن قادما بالدور والبساتنا حزن وتعالى أبدا حتى تظن الناس أنك منهم الذي يتعلم وسائل لدينه متحفزا إذ لا ينال العلم حاسن مجرم تعلمون لا تسري الدنيا بأخرى يا فتى من باع نورا بدجى فسيندم لا تسري الدنيا بأخرى يا فتى من باع نورا بالدجى فسيندم لا تسري الدنيا بأخرى يا فتى من باع نورا بالدجى فسيندم حبيبي ما يزرق أسان قد فجأ بجاه أفضل لمن لله قد لجأ به بما يسرق حسن قد فجاء

جل الخواد بقم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل لجا ما قود ما خنقا والقلب من درر بجاي عبد الإيمان لله خلجا ما قود ما خنقا والقلب من درر بجاي عبد الإيمان لله خلجا ربي a Cheikh Ibra nag man ni ko nit ñi jàngate ak ni ma koy jàngate bokkul ndax ñett ñii rekk ñoo fi nekk ku jëkk ki day jafe day defe nii cheikh rek benn waay la boo xam ni daa jóge fele rek ni mu koy imaginer mooy koo xam ni day dox ci phénomène ba nga xam ni kooko ni muy xeñtoo cheikh bi mooy ci phénomène rek lay dox phénomène googu kookee day jàpp ni Cheikh Ibra ab ab artiste la waaye aarug Cheikh daa am fu mu ne waaye ñu bari xamuñu keneen ki day jàpp ni kenn la woon rekk jaar fi jàll ak jëfam dootul dellu siwaat walla dootul nekk koo xam ni ku ñu war a roy la walla ku ñu war a jox yitte la walla koo xam ni itam nit ñi dañ koo war a jox seen bopp keneen ki moom jàpp ni lépp lu taalibe du am lépp lu ab taalibe di am bu dul woon ak Cheikh Ibrahima Fall du ko am ñett ñooyu ñoo ba tax na itam Cheikh Ibrahima moomu bi muy wër sunu borom dafa am contexte bu tax loolu la am li tax mu am cheikhul xadim radiallahu anhu dafa dafa jekki-jekki ci Mbàkke Kajoor mooy ñëw cheikh Mouhamad Lamine Baara Mbàkke indil ko leetar boobu sëriñ Tuba woo mbooloo mi ni leen rasulullahi yónnee na fi wax ni rabbi asxaabaka bilhimma wala turabbihim bidarsi faqat wa rabbi kulla waxidin minhum bima yaliqu bihi loolu bu leen demee ci irwa ul nadim mi fa waaye yi téere di wuute wuute wuute wuute sëriñ bi am na lu bees mu indil mbooloo mi ndax mbooloo mi jàngal leen fa indi woon bi fa jàng indee ndax sëriñ bi booba ci jamono moo raw ñëpp bi fa jàng indee diir bi muy dem muy dem dem mu mel ni ku sëñ bi jàngal ba noppi rekk li ngay bëgg mooy ginnaaw sëñ bi mana walla sëñ bi am na foo xam ni maa ko maa ko fa dàq maa ko fa dàq jàng xëccoo ba commencé am ci diggante doomi soxna yi waaye yàlla atte ni ko rabbi asxaabaka bil himma yar leen ci yitte ñi ànd ak yow te bu leen yar ci njàng rekk te ku ci nekk ku ci nekk ci ñoom nang ko yar ca yar ba yelloo ak moom leetar boobu mi ngi jeexe qad fakka kabla qad bassa fadla fa durru walla wa nafu jaa'i boobu ci muwaahib xamal ni bis tey bu fekkee ni yitte jooju sow nit am nañ ko jëng yépp dafay daldi toj bu fekkee ñi yitte jooju am nañ ko ngëneel yépp sunu borom da koy buusu mu ñëw bu fekkee ni yitte yi am nañ ko ngëneel yépp dafay ñëw lor yépp day da leen di wan ginnaaw lépp luy njariñ dina dina ñëw dina leen dina leen dina leen jublu waaye nag himma jooju nag mu yitte jooju sëriñ bi wax jaaxal na gaay ndax lan mooy yitte léegi ndax kat ñoom dañ doon def ni njàng mi ñuy jàng di jàng alquran karim di jàng ulum shara'i di jàng yeneen xalaat yeneen yeneen xam-xam mooy yitte ji gën a mag ci sunu borom waaye lettre bu ñëw ni kon yaral say say say àndandoo ci yitte yitte jooju mooy lan bi nga yi nekkee ci njaqare xam yitte jooju bi gaa yi nekkee ci gëstu nan la fexe ba saxal yitte jooju ba ba ba turwe ko ginnaaw dootul jàng dootul wut xam-xam fan la ne sëriñ bi mi ngi ko waxee Mbàkke Kajoor ci lu gàtt rekk ca njare ci ay kilomètres yu xaw a fasale ko diggante Mbàkke Kajoor ak njara waqi ci la ko Cheikh Ibra capté yitte jooju capté yitte ja bi mu capté yitte jooju maanaam nga xam ni moom rek moo war a mën a firi yitte jooju bariwaan na ci borom xam-xam yi nag bi ñu indi maanaam euh, contexte boobu lan moo ko lëkkale ak ñëw Cheikh Ibra ci ci ci wetu Sëñ Tuubaa nee na la yitte jooju bi mu bi waar ci ñoom ci Mbàkke Kajoor la ko la ko sëriñ bi waxe waaye ci njare waxe la ko la ko Cheikh la ko Cheikh Ibra jële te it waxi al aarifu billah kenn du ko capté te àggoo ci alfana dama waxi aarif billah dëgg-dëgg ku jeex takk ci sunu borom moo ko mën a dégg ndax yitte jakat ji ngeen dégg tey cheikh Mountakha saa yu waxee indi yitte jooju mooy yitte ja cheikhul Khadim waxoon ca Mbakke Kajoor cheikh Ibra nag war a ñëw ci kër cheikhul Khadim firi yitte jooju mu jóg di ko wër. fu ne dem na tawal xalaawaat barik li allahumma fi xayaati watal fuaadi watanal ayaati غذي كوني بشرى كل من يدوم وللظواهر أمن مع الغيوب يسر لي ميسر العسير مقداره لي بلا مسير مسدرا بما على الظهر يدوم دبرا مع توجه المكاره ليا باقي الحباب ذكري وهو ليا عنه رديت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراضي رد لخير جهة شيطانا ملتيق الممر والأوطان فر لغير جهة العين يسوق لغيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كل يدي سفت وصفت النبي توفيق هاد خاده الإلهام قد بياني ما لهم بيام بدت لي اليوم برب الغيب أعاذني بمن غلب وغيب لا يتوجه للحي مطعم عن محت مكاري والتعب سعادتي بغير محو كتبات وكوني العبد القديم قد ثبات سكن لي ميسر عسيري مقداره لي بلا مسير ملكني المغني عن الملوك به وبالماح عن السلوك خدمني الله على الخدام بالمنتخى المثبت الأقدام حسن الجميل مددا بمستوى الذي لساني سددا

محمد رسول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول لا اله الا الله la شيخ الأبواب الفاضل yarin ngeeg taalibe gi dañ koo jëlale waaye mën a def nit ñi ci sa jukkoy bopp nit di nga lijjanti ba am nit ñi waaye am nga mën naa bañ a yàgg ndax nit ñi jikko lañuy ñuy jàpp nit waaye sa jikko ju tedd jii nga jikko woo sa jikkoy makaarimul axlaax jii nga yor sa jikkoy maam Cheikh Ibrahima Fall jii nga làmboo sa jikkoy turandoo jii nga yor moo tax nit ñi mën a jox a ak yow mën a yàgg ak yow Fall sëñ Mbàkke yàlla na nga fi yàgg yàlla na nga wér yàlla na nga am jàmm sëñ Bay Jaxate daal dañu woon sëñ Tubaa ku lay def moroom xam na ni xel ni yaa ko man leewet gay waral ñuy dendandoo waaye noonu la de Mbàkke ndax ku noot gaynde not seet gën mu far mu daw du soo woo ki bay noppil te wéy yàlla gis na la yow sëñ Mbàkke sa lewet gii nga lewet ak sa baax gi nga baax ak sa woyof gii ak sa mën maslaa gii ak sa mën a uuf njaboot gi barki sëñ tubaa Mbàkke ñëpp ñu ngi la koy waxtaane di la ko jëwee sëñ Mbàkke bu la neexoon bi nga duggee ci tànt bi gis sëñ maam si ak gis sa njabootu bopp gi bàyyi fi sëñ Amdi ak sëñ Fallu ñu teewal la te bu boobaa daan ko mat sëkk ndax inna rasula bi xadril mursili ndaw lu ne dara jëy ko ko lay taxawee te boobaa sëñ maam Cheikh mii dina bég lool waaye nga toog sa toogaay bii nga toog toogaayu wéyjur wii nga toog toogaayu ndey ji seex gii nga toog toogaayu sëriñ Cheikh jëmb Fall mii nga fi toogee ndax yaa fi jëmmi siñ seex jëmb nga liggéeyal lislaam liggéeyal sa Seex Ibra liggéey bu rëy léegi mën a grand sëriñ Tuubaa gontoo ñëw fii la nu gontoo sax dem waaye bis bee tax ñu fanaan si toog na noonu sëñ Abdoulaat sëñ Abdoul Ahad Mbakke moom sëñ Abdou Khader ginnaaw bi ñu jullee timis ñuy waxtaan ba tudd sa jëmm ji ca jataay ba sëñ Abdou sëñ Abdoul Ahad moom muy muy muy muy wax bay tudd sa jëmm ji di tudd suñ Ousseynou ñi nga bokkal suñ Modou Moussa Fall waxtaan wu yaatu laal waaye loolu dara waralu ko lu dul sa jikko ju baax ji nga baax rek Fall. yor jikkoy makaarimul axlaax ji nga yor mën a yaatal mën a uuf njaboot bëgg sa doomi bopp yi ñii amuñu ci yow sago ndax ni nga leen def Fall. jataay bi guddi na toogaay bi yàgg na waaye soo ñëwoo benn yoon wëlbati ko toog di jël sa alal di ko jox ja jànkati xasida yi ak ñi nga xam ñuy tudd yàlla as rek a man loolu. nit ku baax rek a man loolu waaye sa doom ju baax ji nga ñëwal woote biis bii ñu ngi lay seereel ci moom ni dëkk bi ñëpp ko gërëm kebe mee toog muy kebe bi yaag gi nga xam bi ma koy nuyu léegi daf ne ma dimbali ma rek bu dara jib waaye dama koy tudd rek ngir jaar ci moom jàll waaye tudd ma dara ndax moom bëggul di def lenn di jib ñu koy tudd hmm? mu ànd ak buur mee toog léegi sëñ maam Cheikh na ne ma kebe de teewaayam bi mel na ni Abdou yaa teew waaye Fall jëf na jëfi baatin joo xam ne ñu koy wax mel na ni Pape Doumbia teew jooju nga wax jëf na jëfi Pape Doumbia ci suuf te dara waralu ko lu dul kóllëre gu yàgg nit ko baax a ngi nii koo xamante ni toppe nit ñi alal sëñ sëñ Mbàkke maa ngi la koy seere baax muy kebe mii Youssou Ndour fi ne yóbbu na ko fi ci àdduna wër àdduna maanaam monde bi dëkk booy tudd ci àdduna di ko naw di ko yéem sëñ Pape Faye nee na kilib bi mu njëkk a def muy deedu jaas boobu siiw lool moo nee na kebe mii moo jaayante lépp tourné ko. waaw xam lool mbirum eh, nun koy waxati mbirum internet ak mbirum caméra ak ya ca xam ak tournage waaye doo doo du teg ci jataay ba wane ko yàlla nag di ko natt ci sa ci sa doom ji faal. dafay ñëw ci eh, ci kor ci tabaski gi seet ci ànd ak Pape Doumbia ñu ñëw seet ci sëñ bi bi mu génnee muy jamono boobe ñu ko ñu ko siyaar si ba léegi dañu ci dama woo di wax cofeel gum am ci sëñ maam Cheikh. ba léegi déy na ma ko ni ma damaa bëgg ba bis bi jàllee ñu jàppaat sunu bisub siyaaru bopp ma ñëw siyaar si sëñ bi loolu nag Fall ñu ngi la koy seereel kebe nit ku baax la moo sol moo sol baxa bii colu daaru xuddoos gi tey moom li tax ma bëgg ma ko bëgg koo wone mooy daa daa daa daa daa ñibbi daaru xuddoos te daaru xuddoos laa bokk moo tax daal faaw ma wone ko ba ba mu xam ni daal tey ñoo bokk fu nu dëkk di la sant bu baax di la gën ci turu sëriñ bi di ñaan ah sëriñ Omar Badiane mii toog Fall nga xamante ni moom itam li ma wax ci yow ci baax mën naa koo séere ci jëmbam ji fi ne moom feek tant bi demuñu ba ñaan wér na ma ni ay tegginam akuk taalibeem du ko may muy jug mukk di tàggoo di dem te te te lu mu yàgg a def ci jataayu lislaam yi la muy sëñ Omar Badiane mii bëgg sëñ Tubaa lool jeex tàkk ci taalibe ci tabaski gi bi ko Pape Doumbia demee siyaare ji moom mii muy xëccoo fii zone nord ñoom ñaar ñu bokk di ko so di ko xëccoo di ko soxla ko ba nu demee këram la ma wax Pape Doumbia mooy kër gi ma ñëw de lii andiwu ma fi yàgg naa fee ñëw te suñ tubaa mu fi daan indi ñu daan jàng xasaayit ci ëttub kër baayam bee muy nit ku baax ku lewet ku yàggoo koo xam mu sa soppi ko bis bi may sant suñ tubaa fii at mu jot yàgg na cee def alalam te mus ta toog ba waxoo la mu wane ko wóolul guddi la bukku naa coupé ba nga jàpp suux bi jàpp ni yow rek ko ko jekku sa morom na fu gën a baax gën a nooy te ko wax ndawalul guddi mooy sëñ maam kon nag Fall ñu ngi lay seere li sa doom ji taalibe yi gërëm nañu ko waaye sant nijaayam ju baax ji nga xamante ni daa jaay ni jaay ji jaay bokk géeg lépp ànd ak sëñ maam Cheikh ci taalibe saa boo gisee sëñ maam Cheikh ni jaayam ju gore ji mi ngi ci kanam di ko dawalal te wunewu ko benn yoon woyof lool wàcce boppam lool te jëmi sëñ Tuubaa rekk tax ak maam Cheikh Ibrahima Fall kon jataay bii da daan am at mu jot te at ba at du benn fan du ñaari fan te Fall daa bëgg nga ñaanal ko bala nuy yëgg déwén yii fi xew jóge fi ba man koo woowee nam ko daan woo man nam ko daan wootee waaw nam ko daan wootee sant itam bu baax DG Pape Doumbia mi nga xam ni mooy directeur Thiès Prestige digganteem ak sëñ maam Cheikh li dal Kébé rek ko ci dal sëñ maam Cheikh sëñ Fall daa def lu yéeme loo xam ni yow sax la ko defal ndax at mi nga xamante ni Prestige njëkk naa organiser conférence ci weeru koor nga xam teew nga ca sëñ Mbàkke yàlla daa dogal yëf ya bett nu ba waaju nu ay ndogu sëñ maam Cheikh ñëw fa ñëwin wu yéeme indi fa booli boo xam ni ban demee ba ndogu jot ak café gaag bagage yam ca boole barke Serigne Touba ña nekk prestige ca conférence bi ñëpp dañ caa ndogu ba desal Pape Doumbia nag yéemu ca lool man ne ko lii jëfi Cheikh Ibra Fall la maam Cheikh Ibra buy ñëw ci jataay du calculer day jëf na mu toll maam Cheikh Ibra nag ni mu toll la ñëwee prestige dèjà nag nit ñi kii du ma gën a gore dinaa ko jàpp dinaa ko téye dinaa ko dinaa ko dinaa ko dinaa ko dinaa ko def ni sama bopp loolu dañut ba ci tabaski gi sëñ maam Cheikh dañut ci teraangaam yooyu yëkkati teraanga ju ba ju rëy xar moo xamante ni ba ko deesee gisee dañuy mim xar du bokk ci xar yi may joxe sama kër laa koy yóbbu tabaski ko te bëggul ñu wax ko moo tax bis bi bi mu ñëwee deesee ni lu ngeen jàpp ni ngeen ko bàyyi. ngant li ko dab diggante bu gàtt la waxtu wu gàtt waaye ba ci bëccëg ci suba léegi mi ngi waaj ngir bëgg a ñëw ànd ak waa Prestige yëpp teew fii ànd ko ak yow ba mu jeex waaye kebe mee ak buur mi bu teewee grand sëriñ mi nga xamante ni maa ngi moom a nekk ca télé ba danañ teewal Pape Doumbia mel na ni moo fi teew. kàddu yu nuyoo bi nee na kàddu yi kàddu yu nuyoo rek lay doon. ak sant rek nag. nee na ak sant rek nag. yëkkati kàddu waroon na fi. nee yëkkati kàddu waru leen woon fi di sant kenn it nee na sant yi fi kenn it waru leen. waaye dañuy seedeel sëriñ nee na dañuy yëkkate kàddu seere ci sëriñ Mbacke. seedeel ko ko. seedeel ko ko. mu nangul na ko. mu nangul na ko it. te gërëmal nu ñëpp. te gërëmal nu ñëpp. ndax ñëpp dañoo daje ci ñoom. ndax nee na ñëpp dañoo daje ci ñoom. ci moom. bu nee na bu limee rek nee na dadul du juum waaye matal. li ma bëggoon a seede sëriñ bi yëpp. nee li ma bëggoon li ma bëggoon a yëkkati seere ko ci sëriñ bi yëpp. nee na ñu am na luñ ci jot a wax. muy li nga xam ni. muy li nga xam ni. suñuy mbokk bopp lañu. suñuy mbokk lañu. ñu bokk ñoom maam Cheikh Ibrahima Fall. ñi ëpp ca ñooña mag ko fopp. waaye te daanaka. daa mel ni commencé ñoom. nii may defal. ndax nee na nii ñu koy defal. man mii leer na ma ko nee na moom leer na ko li mën leen mën leen koo defal. loolu sëriñ loolu nee na sëriñ bi ñu la koy seereel. sëriñ am mii. ak sëriñ Fallou mii. ak sëriñ Fallou mii. ak sëriñ Omar. ak sëriñ Omar mii. may nemmeeku. nee na ni koy nemmeeku. nee na moom du leen nemmeeku noonu. ni ñu koy taxawoo itam. nee moom it du leen taxawoo noonu. loolu mu ngi la koy seereel Fall. ak sama mag yi nga xam ni. ak magam yi nga xam ni. ñoom la bokkal sëñ Modou Ablaye. ñoom la bokkal sëñ Modou Ablaye. ñuy ay kilifaan lii may def nii. nee na lii muy def nii. suñ ko rek. suñ suñ ko waxoon ne ko bu mu am rek. nee na du am moom. am moom ndimbal la ñoom. nee na lu am rek ci seen ndimbal la ñoom. ak seenug laa biir. moo tax sëriñ Jili Kine mi nga xam ni. sama lépp mooy léppam ci kër sëñ Modou Ablaye moo ko jox ngànt moo ko jox ngànt waaye teewut daa yebal sëriñ Maxtaar mii waaye nee na teewut daa yebal sëriñ Maxtaar Fall mu baax mii di rakkam di léppam ak ay taalibe loolu Fall ñu ngi la koy seereel ah, man sëñ bi nee na moom nag sëriñ bi li muy waxee saa su nekk rek li muy waxee saa su nekk rek damay tàmbalee ci maam Cheikh Fall na day tàmbalee ci maam Cheikh Ibrahima Fall ci moom rek ku bëgg. nee na ku ko bëgg. ci loolu nga may bëgg. ci loolu nga ku may noonu itam. ku may noonu itam. ci loolu nga noonu nag. te maam rek laa nekk. te maam Cheikh Ibrahima Fall rek laa nekk. goo xam ni. te gëm naa ko gëm goo xam ni. doyloo ko noo xam ni. doyloo xam ni. duma xaaraan kenn nag. duma kenn. duma mbaxa mbaxa ci buntu kenn nag. ndax jëmmi maam ndax jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall ji. ak wóolu ko ak wóolu nee na mbaaxam googu nag. ci la defee. ci la defee. ku nu gis rek. ku dugg si rek. gis rek. ku nu gis rek. soppunu soppunu. ñii fi daje. ñii fi defee. ñëpp rek. ñoom ñëpp rek. maam Cheikh Ibrahima Fall dong mu nag. maam Cheikh Ibrahima Fall dong. lan la muy Serigne Omar Badiane mii. di Pape Doumbia. di DG nga xamante ni moo def baas bii. ñëpp. ñoom ñi ñëpp. sama kàddu dama da koy wax. nee na day wax ni moom du politique. ndax mënu ko. waaye am na côté boo xam ni. waaye am na côté boo xam ni. moom maam Cheikh Ibrahima Fall. nee na moom laay politigal. ñoom ñii ñëpp nag. nee na ma ko waxee léegi. ak taalibe rek. lan ko jàppee. ak ko cofeel. lu ñu def ci moom itam. mi ngi lay seereel ni. maam Cheikh Ibrahima Fall nga tax. waaye du leneen na faal. ndax nee na sëñ Omar Badiane mii. nee na mu demagul këram xamagul këram demagul këram seeti ko. te nee na ñëw na ci kër gi fekk si ko fi bataay yi. fekk ma ca daara ja. fekk ko ca daara ja itam. bu yàggut dara. ñëw na ànd ak njabootam fekk ko fa. te loolu nee na kon xam na ni cofeel la. nee na kebe bi yaa ngi mais ma doon tudd léegi noonu. yàlla yi noonu. nee na ñuy tudd yàlla yëpp noonu. mboolem ko fi daje rek Fall. mi ngi la koy seereel. moom daal mi ngi lay xamal ni. sagal nga bu baax. sagal nga ko baax bu baax Fall. nee na Fall sagal nga ko bu baax. mi ngi lay bàyyi rek nee na sa maam maam Cheikh Ibrahima Fall mu baax ma. gën a dénkaat suñu bopp rek. nee na di la gën a dénkaat suñu bopp rek Fall. ndax nee na ay ndaw lañu. te dañoo amul bëgg. te bëgg nag. léeg-léeg mu yóbbee loo xam ne. mu yóbbee nit loo xam ne. nee na day far de bor bi ëpp. mën naa ci jotaay bi. na mën naa feeñ sax ci jotaay bi nag. muy wax ji ñuy wax. ci sa kanam. te la waruloo yëkkati kàddu. lu dul déglu la. nga dégg nga nga ñuy digal. di ñu di ko def rek. a ci jotaay bi. nee na warul fee feeñal dara waaye xam nañ ni. cofeel gi ñu am ci maam Cheikh Ibrahima. nee na cofeel gi ñu am ci maam Cheikh Ibrahima. xam nga ni bu wér gi nga ëmb yor ko moo nii nga toogee suñu biir. ndax nii nga toogee ci suñu biir. bu dul woon ak maam bëgg nga nga bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall. doo doo ko def mukk na Fall. li ma fiy nekk. ndax li ma fiy nekk. bari na bari na. te li may ñëw fii. te li may ñëw fii. ci yow di la nemmeeku. néew na lool néew na lool Fall. waaye nee na loolu lépp nag. ay yéene yu am la. ak lu ñu bëgg defee. te loolu mu nekkul ko. kon na faam nga bàyyi ñu xel baax. saa su ne itam say kàddu yu rafet. say kàddu yu ak say soññee. nee na ngay asa ci ñoom. kon nee na ñu ngi lay dénkaa suñu bopp. lépp loo gis ñu def nañ ko rek. wala ñu wax ko rek. nga dina ko jéggal. te dina woo. dina dugal. te di ko jëfe te di moytu lépp luy ay tere. nee noonu lan ko suñu waajur bu baax bi di sëriñ Cheikh Ngounda Fall di nu ko defalee. léeg mu woolu ma nee na ba ma tiis sax jàpp ne damaa def dara. waaye su ma ko wuyoo. nee na daf naan la maa ngi bàyyi xel. waaye nee na gisagu jàpp fenn. nan ko ñaanal ma rek Fall. ma gën gën maa dimbali. loolu nag Fall ñu ngi la koy dégg ñu ngi la koy dagaane tam bu baax. ngeen dafa doon soxlaa deenu woo deenu yónni deenu sas deenu def lépp loo xamante ne war nañ ko digal ab taalibe bi ndax loolu rek lan war a defaat ñu jàppe sëñ Modou Abdoulaye noonu nee na la jàppe jàppe ko Serigne Cheikh Mounda jàppe ko mboolem njabootu Mame Cheikh Ibrahima Fall sëñ Moussa Fall ak ñëpp rek Fall fu ma gis day daal di jàpp ci noppam bi ni ko loolu gën naa laa gis de. loolu la ko faal man damaa fi rek taxawaale. waaye ñaanal lu baax faal. waaye nag faal ñu ngi sant bu baax. sant gi may sant maam Cheikh Ibrahima Fall. maa ngi la koy seereel. di nga xamal ni tey jii. maam Cheikh Ibrahima Fall dong moom laa doon sant. ci moom it laa yem. ci keneen Fall. wutuma ko wutuma ci mbégteem kenn lu dul mbégum maam Cheikh Ibrahima Fall xam mooy sa mbég mooy mbégu jaam ñëpp kon nag boo la nangulee rek leer na ne lépp dana nangu fa kon ñu ngi jégalu kàddu yi baax di di wàcc sama kàddu di tuubaat baax fàttee jégalu fa def fa rafet na loolu fa mbokki sëriñ bi nee na asalaamaaleykum waaye nuyu mbooloo mi yëpp sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbooloo mi yëpp kenn ku ne ci sa tur ak sa sant. nee na kenn ku ci ne ci sa tur ak sa sant. ci na mu nee na ci mu gën a rafete rek. ci yéene. ci yéene. di sant ñëpp. na di sant ñëpp. ndax jataay bi. sëriñ bi nee na jataay bii. warees na cee sant. warees na cee sant. ñi ko fekkee. ko fekkee. teewe ko. teewe ko. xaw a yàgg itam. nee na mu xaw a yàgg itam. ñu tàmbalee ko ca bëccëg. ñu tàmbalee ko ca bëccëg. ca suba. ca suba. ba waxtu wii. kon ñooñu amal nañ leen cant. kon noonu ñooñu amal nañ leen cant. waaw ah, sëñ maam Cheikh ngeen ko defal. nee na sëñ maam Cheikh lan ko defal. moom moo ndax nee na moo woote ñu ñëw. waaye ku déglu waaye ku dégg kàddoom yii. ak ni mu wax ci ni mu waxee sama jëmm ji. ak ni mu waxee ci jëmmam ji toog. woyofale boppam. ak ni mu woyofale boppam. ak eh, ni ma joxe lépp. ak ni mu jëlee lépp teg ko ci loxol sëriñ bi jébbal ko ko. ngir jëmmi Cheikh ngir jëmmi maam Cheikh Ibra. dafa mel ni. kon nee na dafay xam dafay dafa mel ni. kon maa war a sant nag. nee na nag kàddu go gi nag day mel ni moom mii moo ko war a def nag moo war a sant. booy seetlu. ndax nee na booy seetlu. day mel day mel ni. dafa eh, woote. dafa woote. ngir jëmmi Cheikh ngir jëmmi maam Cheikh Ibra. la ca lépp mu def ko. la ca war lépp mu def ko. ànd kook ay taalibeem. ànd kook ay taalibeem. ak njabootam. ak njabootam. ak i wëllëreem. ba mu mel nii. ba mu mel nii. kon. kon. moom dama koy sant. nee na daf koy sant nag. ndax ku def lu mel nii. ndax nee na ku def lu mel nii. di di ngóora. di ngóora. di njàmbaar. nangu koo joxe. nangu ba pare nangu koo jël nag cër boobu li muy rëy lépp nangu koo joxe. bañ feeñ. bañ caa kooka. kooka. lim la defar rëy na. la defar rëy na. waaye la tax mu def ko. waaye nee na la tax mu def ko nag. te mooy Cheikh Ibra. te mooy Cheikh Ibra. lu mu ci wax rek dëgg la. lu mu ci wax rek dëgg la alhamdulilah. kon. kon. maam Cheikh. ko sëñ maam Cheikh. ñoo bu baax. sëriñ bi nee na ñoo ngi sant bu baax. yaag sa ñii nga fi ñi fi daje. yaag sa bokk yu baax yi fi daje. sa sa wëllëre yi. ak sa wëllëre yi. ak taalibe yi. ak taalibe eh, sa doomi baay ak nee na sa doomi baay yi. nga xam ni. nga xam ni. yéen a bokk jataay bi. yéen a bokk jataay bi. yéen bokk liggéey bi. bokk it liggéey bi. xam naa ni. xam naa ni. la sabab mu yegsi fii. la sabab mu yegsi fii. Pastef ci la bokk. seen Pastef ca la bokk. seen yéene ca la bokk. seen yéene ca la bokk. seen la bokk. seen ñaan it ca la bokk. xam dafa mel ni. ndax xam nañ ni. ndax xam nañ ni. seen bopp lañuy liggéeyal. seen bopp la ñuy liggéeyal. sëñ Amdi. sant yaag sëñ cant yaag sëñ Fallou. ak sëñ Omar. ak sëñ Omar Fall. ak seen jigéen bu baax bi fi jógee. muy soxna. muy soxna maam Sey Fall. maam Sey maam Sey. ak mboolem ñi jàpp ñëpp rek. ak mboolem ñi jàpp ci bis bi ñëpp rek. sëñ Omar. sëñ Omar. Omar Badiane. muy Omar Badiane. ñoo ngi lay sant. yow it ñu ngi lay sant. di rafet rafetlu sab taxawaay. di rafet lu sab taxawaay. ci dëkk bi. ci dëkk bi. tàmbalee ko ca kër Cheikh. tàmbalee ko ca kër Cheikh. am na ñoo fa bokk dëkk. nga xam ne ñoo fa bokk dëkk. wayjur ne fa. nekk fa. nekkoon fa. nekkoon fa. njabootam ne fa. njabootam ne fa. di ay taalibe. di ay taalibe. àndoon ko suñuy wayjur. ànd ko àndoon koog seen i wayjur. ak suñuy mag. ak suñuy mag. ànd ba rafet. ànd ba rafet lool. ànd boo xam ni. ànd boo xam ni. ak taalibe. ak taalibe. moom rek moo ko moom la làmboo. moom rek moom la làmboo ànd boobu. kon ñu ngi lay sant bu baax. ñu ngi lay sant bu baax bu baax. di la ñaanal yàlla. di la ñaanal yàlla. yàlla dolli laa taxawu. yàlla dolli laa taxawu. ba li nga bëgg jëf. ba li nga bëgg a jëf. ci ci ci sëriñ bi. ci sëriñ bi. ci ci taalibe yi. ci taalibe yi. ci dëkkandoo yi. ci dëkk bi. ci dëkk bi. yàlla dimbali la. yàlla dimbali la. loo ci man rek. loo ci mën rek. loo mën ren. bu ëllëgee. bu ëllëgee. nga mën lu ko raw. nga ko yàlla na ko yàlla def. amin mën na ko. yàlla mën na ko. te soxla nañu. te soxla nañu. ñu mel ni yow. ñu mel ni yow. xam ni. xam lu ñu di def ci taalibe yi. lu ñu di def ci taalibe yi. ndax sunu loxo. ndax sunu loxo. sunu man-man. ak sunu man-man. matewu ko. mate matewu ko. ngeen ñu fay ngeen ñu fay fay wuutu dinu ko defal. kon nee na loolu. yéen itam ñaanal leen. yéen ñaanal sunu bopp la bopp rek la nag. ñaanal njaboot gi rek la nag. sëñ Kebe Mële. nee na noonu la koy waxee itam sëriñ Kebe biyaa gi mee toog. Kebe biyaa gi. yow itam ñu ngi lay sant Kebe. ci yitte ji nga am. ci yitte ji nga am. ak cofeel gi nga am. ak cofeel gi nga am. ak cawarte gi nga am. ak cawarte gi nga am. ànd ak suñu suñu rakk ji. te ànd ànd ak suñu doom ji. ànd ak seen doom ju baax ji di sëñ maam Cheikh. di sëñ maam Cheikh. kon yow itam Kebe biyaa gi ñu ngi lay ñaanal bu baax. yàlla na nu yàlla fayal ci daraje maam Cheikh Ibrahima Fall xam naa dees du mën a lim ñëpp ndax ko lim bi dafay doy waar nag te li ci ëpp solo ndax day répété rek nag waaye nee na wax nañ ko ba noppi nag mooy jëmm ji moom ku ne xam na ni am na fu ma ko teg dëgg la de te nee na loolu sëñ maam Cheikh moo ko may boppam keroog bi mu ñëwee fii di ma bi. di ko yëgal bis bi. ànd ak nijaayam ju baax ji. nee na da cee bëgg lool da caa bëgg lool. foofee la ko tàmbalee wax ni ko. man ku la naw laa. ku la fonk laa. ku la bëgg laa. ndax da am fayda. am jom. te loolu. dafa bokk ci. jikkoy maam Cheikh Ibra Fall. dafa bokk ci doxiinu maam Cheikh Ibra Fall ñu toll ci jamono joo xamante ni ni dañ koo war di wax di ko jëfe di ko won doomu aadama yi nag ñu xam ni seen maam sunu maam lii la fi bàyyi loolu moo ne ci yow moo nekk ci sa doomi bàyyi yi toog yépp nag waaye tey ginnaaw yaa aya tey yaa woote muy woote boo xam ni yàgg naa ko bëgg a fekke. yàgg naa ko bëgg a fekke. teewe ko nag. waaye yàlla daf ma nattu. ci at yi ci ginnaaw. jamono yii. daf may fekk ci àll bi. tam xarit. na ma fekk ci réew mi. ba tax ba ren jii. nii ko yàlla defee. nii yàlla defee. nga ànd ca. nga ànd ca. ko nii. nga ko wootee. ci penc mi. ba ma ko yëgee. ma ko yëgee. nee na dama cee am mbégte lool nag. kon nag. Eh, alhamdulilahi rabil alamin la ñuy wax. yàlla dimbali na ma. yàlla dimbali na ma. ba ma fekke ko nag. muy mbégte ci man. muy mbégte ci ah, ku ne xam na ni. ku ne xam na ni. Ah, moom. lu ñu ko defal. lu ñu ko defal. te yàlla tax. te yàlla tax. pay ga. pay ga. ak yool ba. ak lañ ci yéene. ak lañ ca yéene. ak lan tey ñaan insha allahu yàlla daf koy def kon nag nan sant yàlla rek xam ni jataay bi daal jataay bi daal ah, yàlla yàlla eh, dana nu ko fay yàlla dana ko fay nim nu koy fayee nag mooy nim koy fayee nag mooy kenn ku ci nekk la nga bëgg yéene ko fas ko rek ci jataay bi jataay bi attan na ko jataay bi attan na ko ki ñu koy defal attan na ko. ki ñu koy defal attan na ko. weer wi ñu koy defee attan na weer wi ñu koy defal it attan na ko. tey du tam xarit. na tey jii ku ne xam na ni du tamxarit xarit. tam xarit ak seegul. fukki fan ak juróom-ñeent la. fukki fan ak juróom-ñeent la. juróom-ñeenti fan laa wax. juróom-ñeenti ci juróom-ñeenti fan yi lay doon. ci am asamaan seet di nee na ci moom lay am asamaan xëy di fukki fan. ñuy asura. taasura. ak asura. ak asura. taasura la ñuy feetu. nee na taasura la ñuy feetu. ci ay ñam. ci ay ñam. ay xéewal xéewal yeeg. asamaan set asamaan set. bisub euh, ñaan la. nee na bisub ñaan la muy yowmal xasuuraa bi. loola ak seegul nag. waaye weer wi. am nay mbóot yu bari yoo xamante ne nii daf koo làmboo ba tax na bis boo ca feetu rek bis boo ca màggal rek jàppal ni am nga yoolu màggal kon nee na bis bi kon am na solo moo ci sant bu baax a baax. ñuy sant bu baax a baax a ñii fii teew itam. ñii fii teew itam. doon tudd yàlla. doon tudd yàlla. ñoo ngi leen sant di leen gërëm. nee na ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Assane Thiam suñu Assane Thiam. yow ku ne xam na ni ma demee ak yow. yow ku ne xam na ni ma demee ak yow. sëriñ bi nee na yow jataay bi du jataay sax di la fi sant nag sax. nee na jataay bi gën a biral rek la. sama diggante ak yow nag. loolu rek la Fall. lay sant waaye nee na amul lenn mu lay yëkk di ko sant ci yow. ndax bu may sant. sant gi. sant gi. mat naa bañ sax. mat naa sax bañ a mat ndax li nga ma ndax li nga ma yéene. ak ni nga may taxawoo. ngir jëmmi Cheikh ra loolu nee na mënu koo sant nag. nee na bay bàyyi la ak Cheikh Ibra rek. loolu lanu ca man nag. nee na ñii ci di doon sikkar itam. Serigne Moussa Kallaamullah nga xam ne yéen ñoom yaag sa waay pap moom yëngal ngeen tànt bi. alaaji fa Fay yëngal ngeen tànt bi borom xasida yi neen borom xasida yi Ousmane Diop moom itam taar kàlla macha allah lépp taar kàlla sëriñ bi nee lépp am na solo lépp amul na yoon xolam sedd na ci nag alhamdulilah. loolu nag moom rek nag defe naa moom la moom ngeen bëggoon maam Cheikh Ibrahima it moom la bëggoon moom dooyu mbaay mi baax yi toog nga xam ne ñoom ñi ñëpp tak dama leen di sant. daf leen di sant. xam naa ne li li nekk seen diggante. nee na xam na li nekk seen diggante. ci ci ci àndandoo. gi. di jàppalante. di jàppalante. di di jëmmalante. di jëmmalante. di yéenante jàmm. di yéenante it jàmm. ndam. loolu moo nekk ci ñoom. loolu yéen. man nag. nee na moom nag. bu fi nekkee. yàlla def. yàlla def. Ah, ni mu ko defee rek. ni mu ko defee rek nag. may seen kilifa. ngeen yëg loolu. ngeen yëg loolu. nangu ko nangu ko. fonk ko fonk kenn ku ci nekk kenn boo ko gisee bu ma dajeeg moom bu ma dajeeg moom. dañ may xalamti ko. nee na daf xalamti ko ndeysaan. ndax ndax xam xam ci ñoom. ndax xam ci ñoom. cofeel ak yëg ak yëg. ak fonkeel ak fonkeel. loolu dafa am solo nag. nee na kon nag yéen ñii ñëpp nag mi ngi leen di sant di leen gërëm. Oh, seen xolam sedd na ci yéen. nee na itam yaakaaram itam rëy na ci loo ci yéen lool am na ci yéen yaakaar. ba tax na. dafay ñaan rek. bàyyi leen ñaan yàlla bàyyi leen fi. ñu yàgg ànd. ñu yàgg ànd. ngeen am am am li ngeen bëgg seen maam rek. ngeen am li ngeen bëgg ci seen maam rek. ngeen am ko. yàlla na ko yàlla def. yàlla ngeen wér. yàlla na ngeen wér. yàlla gudd fan. yàlla seen daraja yokk yàlla na seen man-man it yokk yàlla na ko yàlla def. Euh, Modou. nee <laughs> ñun moom. Fall moom kay njaboot la nu taalibe la nu lépp la nu rek Fall waaw tarkalla Fall na ñun moom nee doom leen ci ñaari wet yëpp nag Alaaji Njaase sunu wéjur nee na mbokka moom waaye wéjur a soxna Ndey Mbay Njaase itam ca kër maam Alaaji di kër di doomi Alxaaji Maxtaar Mbay ca kër maam Alaaji waaw kër maam Alaaji moom tarkalla foofu yëpp kër Seex ak frontière boobu naaj tarkalla waaw diggante boobu la diggante kër maam Alaaji ak kër Seex noonu lan demee Fall nee na Seex Abdoulahi tam suñu rakk jee toog nee na def ni bégee bu baax a baax Fall ba ci Mouhamadou Lamine Xaadimul Muslimin ñoom ñëpp rek Fall yaay sunu kilifa di sunu conseil di sunu lépp kon nee na Fall ñu ngi mi ngi ñuy bëgg bu baax a baax. Euh, xam naa damay daaneel nag ci grand Serigne. nee na dafay daaneel nag nee na ci grand Serigne nag. grand Serigne Amadou maa ngi koy nuyu. ah mi ngi lay nuyu. Ah, nee na di la bëgg bu baax a baax a baax. waaw nee na wax na dëgg nee na daa war a am grand sëriñ nag moom itam. Ah, Thiès Thiès yëpp itam ànd nañ ci nag. te nee na Thiès yëpp it ànd nañ ci loolu itam. nee na yaa ngi koy doxe nag. mu ngi koy jëfee. tàngam liwul dara. tàngam liwoo dara it tarkal la. te itam moom feese na ko nag feese nga ko nag wax dëgg yàlla. dañuy ñaan rek kon jàpp ci ñëpp jàpp ci rek nag. xam ne am nañu grand sëriñ nag. ah sëñ sëñ sëñ ah grand sëriñ nag gi gi gi bii message bi yaakaar naa ne mi ngi doog a am mag ba grand sëriñ gi dee grand sëriñ daal bii message ah mi ngi doog a jot ah moom tarkalla Fall doon na kay. voilà ah grand sëriñ. grand grand sëriñ daal sëriñ bi validé na grand sëriñ gi tey. ci pencu maam Cheikh Ibrahima Fall bi nee na di sa wël di ngay wëllëreem nag di di xaritam nee na kon wëllërew kër maam Cheikh Ibrahima Fall nga xaritu it kër maam Cheikh Ibrahima Fall nga kon nag nañ ko dégg noonu rek Fall nee sant baax Fall Fall <laughs> waaw kër Kalla nee gàmmu gàmm sëñ maam Cheikh nee na gàmm gu jot grand sëriñ mi ci moom lay reere delluwaat waawoon wallaay bëgg lool nag njabootu sëñ Tuubaa yi Cheikh Ibrahima Fall amu ci sago tey danoo ànd Touba ba yàgg mu naan bi am na murid yu bëri yoo xam maa gën a miin Touba waaw bëri na ruq yu ma fi xam yoo xam ni bëri na murid yoo xam man ko xanaa murid ndaw yi lay doon waaye ñun murid yu mag yi moom gënoonoo miin Touba nag grand sëriñ wax <laughs> dëgg yàlla nit ku baax la Fall grand sëriñ daal sunu grand sëriñ daal. kooku grand sëriñ bu ko ëpp man man itam. waaye grand sëriñ bu ko ëpp man man itam wala aw tur. wala aw tur itam. moo moo la ëpp xorom. moom daa ko moo la ëpp xorom moom <laughs> loolu de dëgg la Fall <laughs> waaw xorom di def bari na lool. kon nag ba ñu fonk rek bu baax Fall. bilaay Fall waaw moom daal jataay bi ngi mat na sëkk Fall. lépp mat na Fall mat na sëkk Fall. waaye nee na jëmm ji di sëñ maam Cheikh daal na ngeen xam ni sëriñ bi nee na bëgg na ci sëñ maam Cheikh. ni mi ngi taxawu Cheikh Ibra Fall ci anam goo xam ni nii. wax dëgg yàlla. nee na seen xol sedd na ci nag am na ñëpp jàmm faal lii ngeen wax léegi ci digganteem ak nit ñi digganteem ak Pape Doumbia muy directeur Thiès Prestige kooku kooku itam sëriñ bi nee na xolam sedd na ci moom itam nda kebe sëriñ Mbàkke nee na mi ngi nii yóbbante ci DG Pape Doumbia ak cant nee na mi ngi nii yóbbante nee na yëg nañu taxawaayam ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall. rawatina ci jëmm ji di sëñ maam Cheikh. Serigne Fallou moom Serigne Cheikhouna Fall moo leen di nuyu. xam na ni wax sax dafa mënta ñàkk rek. waaye mu ngi koy tuubal sëriñ bi di sëñ maam Cheikh Fall wax ci sëriñ bi rek. foofu rek lañ ko teg. sëriñ bi moom yemalewuñ ko ak dara. ndax moom damay faral di wax sax day faral di wax naan sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke aw melokaanam aw melokaanam woyefam ak woyefam ak laabiram ak laabiram buñ ko ci dee topp ñun ko ci dee topp man man man mën nañ see loolu mën na manees na cee loolu ni ñuy def ndax ñii muy def njabootu chèvre yi moom ba ñu la waxtaan moom ba ñu te waxtaan ak kenn ba ñu sax ba ñu sa sax werante kenn ndax loolu lépp daf koy def ak ñun. lépp da koy def ak ñoom ñi toog. mu neex a ñeme lool. mu neex saa soo yegsee ci moom. saa soo yegsee ci ko mën a ñeme lool. da nga ko mën ñu ngi ñaanal bu baax rek. kon Serigne Fall wax ni Fall noo ngi lay ñaanal. suñu borom yokk saw fan. wéral sa jëmm. nga làq ngërëmal maam Cheikh Ibrahima. lii muy wax nag daanaka moo doon wax ni sëñ Amdi ak sëñ Omar mais kenn ku nekk ci ñoom ñaar mën na ko wax waaye def ci am loolu xam ni moom digganteem la ak sëñ maam Cheikh Fall mii ndax dafa dégg fii mu wax ni sëñ Assane Thiam wax ni dafa jox sëñ ji kenn oto sëñ jiili ni ko. sëriñ joxoon nga sëñ Modou Ablaye oto. joxaat ma oto. dootoo ko ñàkk. ba mu joxee sëñ Modou Ablaye oto. keroog bis boobu. sëñ Modou Ablaye dafay ñëw. mi ngi ni yorul dara lu mu ko jox. ay saako ceeb yi ñu tàmbali. ay saako yu ceeb yi ñu tàmbali. ay saako soble yu ñu ay saako soble yu ñu commencé. yooyu la dajale ci kër gi. yooyu la dajale ci kër gi. ba kër gi dara néew fi. lu ñu tënku reer sax amu bi mu dajale loolu lépp. indi ko jal ko ci saal bi. indi ko jal ko ci saal bi ci kanam suñu woon Ablaye. ba jox ba wékki benn ventilo bu na ko sax ba yëkkati benn ventilo bu nekkoon ci saal bi jébbal ko ko. ndeke booba. ndeke booba. xelam dajul oto bi. xelam dajul oto bi. ba oto bi ba xelam dajee oto bi rek. ba xel mi oto bi rek. la daal di joxe oto bi. ñu daal di dox ab diir. ñu daal di dox ab diir. ko lettee nga mu ni ko lettee nga am ko de. ñu dox ab diir. ñu dox ab diir. mu amaat beneen. mu boobu mu amaat. ko jox. moom mii di Serigne Fallou la ko jox. te keroog bi ma mu ko koy jox. ñoo tëdd ci néegam maam ñoom ñaar ñoo tëdd ci biir néegam. di waxtaan. di waxtaan. ba minuit. ba eh, moom mu ni ko Serigne bi maa ngi dem dallu ndax moom li muy teel a yeewoo tax. guddeegul de. mu ni ko moom de guddeegul de. kon yow da ngay tëdd nii. kon yow da ngay tëdd nii. mu ni ko xam naa su ma àggee. day àggale kurusam. daal di dallu. ndeke booba. ndeke booba. man lay yootal ma dem. moom lay yootal mu dem. bi muy indi oto bi ci kër gi. bi ci kër gi. yëgu ko. daf koo ko gi. daf koo indi dugal ko ci biir kër gi. gaare ko fi. ngóor si nekk si kër gi. si nekk si kër gi. moom la jox carte grise bi. ak caabi ji. ni ko bu sëñ Fallou jógee nga jox ko ko. nii la ko jox addi Cheikh Ibra. muy ànd boo xam ni. muy ànd boo xam ni. moog sëñ am ni mi ak sëñ Omar mi ñoom ñett ñoo bokkoon benn daara. ñibbisi ba mu wàccee leen ñibbisi fii. ñibbisee fii. bi ñibbisee fii. mu fekk ko fi. mu nekk kër mu nekk kër maamam. muy dem fi moom. muy dem fi moom. ànd. mu nekk foofa. mu nekk foofa. ba ni ko sëñ Modou Ablaye joxe ndigal. ba ni mu ñëw fii ci penc mi. ñoo fi bokk nekk. ñoom ñaar ñoo fi bokk nekk. ba muy dem àll ba. di wuti di di wuti ñax. ñaari néegi ñax yi nekkoon fii. ñaari néegi ñax yi nekkoon fii. moom mii di sëñ Fallou moo fi daaj ñoom ñaar. ñoom ñaar ñoo ko fi daaj. ñu xàdd ko. yooyu nekk moo fi njëkk a nekk. ku xamoon kër gi mu nekk. da nga xam loolu. man mii xam naa ko. booba ak léegi. booba léegi. ni ma ko xamee woon. ni mu ko xamee woon. ni la ko xamee ba léegi. amul soppeeku benn yoon. amul benn yoon. bañ ne ko ba waa këram mii danaan leen. sëñ Fallou moomu kër gi. bu kenn ñëwee sa bu nee fii. bu nekkee fii. kenn jógee fee sa kër ga. kenn jógee fee sa kër ga. ñëw di ma woosi. ñëw di ko woosi. su ko yëgee su ko yëgee. da koy wàññi. da koy wàññi. daan ko kii nekk këram. ci këram la nekk. nga daal di ko woosi. nga daal di ko woosi. bu ngeen bàyyi bàyyi leen loolu. ay yoon yoon. ay yoon yoon. kon moom kon moom sëriñ bi. lépp lu ñu wax ci moom. daanaka tëdd fanaan lañ dul def. daanaka tëdd fanaan lañ dul def ñoom ñaar. waaye lépp ñoom ñaar ñoo koy defandoo. gore muy ko gore ndax fan yële fan yële ci gàmmu gi ci gàmmu gi ah, gàmmu gi ci koor gi ci koor gi dafa damaa ñëw ci kër gi ni ko murit dama laa ñee ni ko murit man de dama laa ñee ni ko dama ni ko man de dama laa ñee mu ni ko loo ma ñëwee mu ni ko da ngay murit eh, mu ni murit saarix mu ni murit saarix mu ni ko murit saarix nga moom la. nga nangu ko moom nga. boo ko bañee tamit moom nga. boo ko bañee tamit moom nga. ndax jëfi murid saade ngay def. kon loolu. kon moom moo nekk ci diggante. moom moo nekk ci seen diggante ñoom ñaar. nee na li muy wax nii. sëñ am di mën na koo seere. sëñ Omar mën na koo seere. di ko seereel sëriñ bi rek. mu xam ni. di wax di wax ni. nii nga ko jàppee nii. nga ko jàppee nii. sant baax a baax. moom ñoom ñëpp ñabatu chèvre gi ñoo ngi sant bu baax a baax a baax. te daal di xam ni sëñ maam Cheikh Fall mii. ku neex a tiitaroo la. ku neex sagoo la. li ñuy ànd lépp. li ñuy ànd lépp. mësuma ko ni. mësu ma xool. moom kay mooy xool. def xam ne def naa lu ma war def. xam ni def na lu mu war def. moom mu rus ma koo wax. moom mu ko koo wax. ay tegginam àgg ca. waaye moom luñ koy tere. wala nun naan déedéet. wala accam. kenn mësoo ko cee gis. ku baax la ku baax la ku gore la ku tege ci yoon ku tege ci aw yoon la. nangu kilifteef lool. loolu daal sëñ Mbacke Fall mu wax ni mi ngi koy seere xam na ko bu baax a baax a baax fu ne ànd na moom. seen taxawaay ci bisam bii sëriñ bi wax ni mu ngi leen di sant di leen gërëm mënta lim ndax su limee day juum waaye ku fi teew rek ci ab rajo wala ab télé wala ab site internet mu ngi leen di sant di leen gërëm. آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين